moo mbokk yi ñaari saar la yu ndaw ci gis-gis waaye ñaari saar yu am barke ci wàllu njabar képp koo xam ne bëgg nga mucc ci njabar dee ko jàng dee ko bind di ko sangoo wala di ko jëfandikoo képp ku ci góorgóorlu yàlla dina la ci musal amul lim bind ko di ko sangoo ndax boo nekkee ci kanam li lay wër day bari ku ñemewu la wax nag dimbali leen ma dafa war a góorgóorlu ci boppam balaa balaa balaa ndimbal di weesu moo tax ngeen bind ko saa su nekk di ko bind di ko jëfandikoo walla di ko jàng am na nuñ koy bindee waaye boobu nag xaalis laa ci laaj boobu xaalis laa ci xaalis de xaalis bu tuuti la xaalis waaw xaalis <laughs> boobu wallaahi boo ko bindee ci xar ci xar lañ koy def <clears throat> mooy li nekk ñaari bul yooyu di nekk ci ron awra xar hmm? danga koy bind jël xar rendi ko jël loolu dugal ko ci saafara bi nga togg ko doo ko togg ci cin na ci faxa nga koy togg faxa xam nga ko mooy walla mooy ndaal yooyu ci moom nga koy togg togg ko ba mu ñor lu jafee lekk la nag waaye nga fexe lekk ci lekk ci même bu dee tuuti bu dee tuuti mu jaar sa biir nga jëfandikoo ko li des nga sotti ci ndox nga jëfandikoo ko buñ la tegalee lekk bu am poson sax lekk gi dina la ne na dañ maa posone wallaahi lazim waaw loolu na ngeen ci bàyyi xel waxuma def ci naka sudul noonu sax de waaye même poson bu ñu ko defee ci lekk jox la balaa nga ciy dugal sa loxo di nga dégg lu la wax ne la lii dañ ko posone ci xar lañ koy liggéey ma baamtuwaat ko falax ak naas yi da nga koy bind juróom-ñaar wala lim bu tóol rek boo ko bindee ci lim bu tóol nga raxas ko def ko saafara nga wut xar nandal ko ci saafara bi tuuti nga rey ko boo ko reyee ba fees ko ñaari bul yooyu nekk ci ron awram wàkkañ loolu ngay jël dugal ci saafara nga sotti ko ci faxa nga togg ko nga togg ko togg ko ba mu ñor nga fexe lekk ci tuuti lekk ci bul boobu lekk ci soos bi dégg doo ci def lenn lenn lu koy safal nag noonu nga koy togge nga lekk boo ko lekkee ba pare nga jëlaat ndox dolli ci loolu nga jëfandikoo luñ la munti tegal ci àddina bu dee poson la bu dee liggéey la bu dee nangam la dina la wax ne ah am na lu ñu def ci man lu bokk la moom na ngeen ci bàyyi xel yal na yàlla fay yaa bi yal na yàlla dimbale yal na yàlla sàmm yal na yàlla aar desaluma ci dara code bi yëpp laa jox amul déedéet <laughs> man duma ma côté du ma côté du ma côté waaw du ma côté te wallaahi lépp lu ma leen jox yéene laa leen koy joxe. ba pare barke laa ñu koy joxe te du ma joxe lenn looy dem laal nga naan gisuma déedéet déedéet du ne damaa wóolu suma bopp dañoo toll ci jamono goo xam ne dafa xat nit ñi amatuñ jot waaw di di dóor tey dóor suba gannaaw suba cuqi cuqi cuqi kuy nelaw yaa ngi wirdu ku nelawul yaa ngi wirdu déedéet baax na baax na waaye yooyu tamit am na solo yoo xam ne doo ci sonn te njëriñ bi bëri na waaw lépp lu ma leen munti jox bu ngeen ko déggee ci audio jël leen bu ngeen ko déggee ci vidéo jël bu ngeen ko gisee ci internet jël leen bu ngeen ko defee di ngeen ko ci gis yàlla na yàlla barke am na yenn yoo xam ne nit ki waratu ko laaj ay listixaar ay nangam dem ci sëriñ listixaaral ma nangam nangam déedéet yooyu jaratul mooy kam min fi atin bi ma leen joxoon mooy bi gën a gaaw dama dem euh, <laughs> déedéet France mois de mars bi ma wàcc avion bi dugg ci passerelle bi pour dem ci police ak douane ma am benn waaye ma dajal ci passerelle bi rek mu ne ma eh kam min fi atin xëy <laughs> ma ne ma demaat ci kanam am keneen ku ma ne eh, min fi atin xalilati ma ko kon egsi na fi mu ne ma fii la wullee ñaay <laughs> ma ne ko baax na waaw mu ne ma nag bu ma sañoon nga may ba ma tuddee la cheikh kam min fi atin ma ne ko nag loolu bu ko def sama papa cheikh la ma tuddee <laughs> kon mbokk yi loolu na ngeen ci bàyyi xel yàlla na ci yàlla def barke.